jërë ngeen jëf ami téléspectateur people 221 ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi di amaat mbégte jàkkaarloo waat euh, nag ñu ngi fii Malika seet si champion boo xam ne kenn dootu ko présenté ci làmb mu di général bu Malika euh, général bu Malika nag bu ñu nee rek suba lay bëri ñu seet si général bu Malika nag ah loolu yaakaar naa ku ne war naa toog déglu ko euh, yéen ñi ñu suivre dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay asalaamaaleykum ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yenent bi di gërëm suñuy ñaari waajur di nuyu waa Malika yëmbal benn baraag buun Kër Massar àllu ba ñaax montagne di nuyu suma am nekk si diaspora di nuyu suma gaay yi may jàppale di nuyu tamit suma suma xarit yi nga xamante ne ñooy suma lépp di suma staff di suma waay di ma jàppale ci biir ak ci biti ah. rawatina di nuyu tamit fi nga xamante ne euh, mooy suma base muy suma suma mafia bi 100 pour cent général bi aw ma seen fay maa ngi siyaar ñëpp daal. di leen jox seen wàccuwaay. d' accord euh, général ci làmb ñu bari ni général làmbam presque dafa xaw a yéex ci côté arène. Mhm. parce que boo xoolee ñu bari nee nañ général heure bi waroon na fekk mu dépassé fii. Mhm. problème bi lan la problème mu adversaire la wala problème staff la. waaw boo xoolee moom làmb léegi mën naa ni làmb dafa xaw a dafa xaw a dafa xaw a yàqu quoi li tax dafa xaw a yàqu mooy làmb léegi moytante yi dafa bari ci làmb adversaire yi bëreetuñu. moo tax làmb saa bu ñu ci tëggee benn làmb boo xam ne ay adversaire de taille lañ rek day doon loo xamante ne day doon lu spécial ñëpp koy bàyyi mais boo xoolee ñun ñi nga xam ne marqué nañ suñu empreinte ci làmb souvent dañuy am problème mu adversaire ndax amatul man lu may prouver ci làmb mais li tax mu yéex rek du ci man ndax làmb mooy suma métier moom laa ab te def te saa bu ma xëyee ci laay dox di ci wax mhm. mais su ma toogee bëréewu wala mu yéex rek amaana ci adversaire yi la mais nag yàqamtiwuñu dara. kon da nga jàpp ne adversaire yi ñoo lay xaw a moytu moo tax mais du problème staff. non du problème staff problème adversaire la rek ndax ñàkkuma staff bépp staff bu mbër di am rek pour war a doon roi des arènes am naa ko macha allah ñàkkuma ñàkkuma lool noonu. ndax li tax ñàkkuma ko mooy am naa ñoo xamante ne am nañ xalaat bu rafet am nañ gis-gis bu yaatu te luñ ma digal ma def luñ ma tere ma bàyyi. kon loolu rek mbégte la. ñu gis général ci ay combat am combat am yi nga xamante ni ñëpp ci la ñu ëpp espoir ne général. bu ñëwee tey day jàpp waa ji daan ko mais souvent. ci wàllu xeex. daanaka da ci xaw am faay ba sa combat bi passé presque feeñ na ci. lu waral loolu. waa mais làmb la rek xam nga souvent nit ñi ñooy gis faay mais man mi nekkoon ci biir làmb ji ak ñi nga xamante ne ñoo ma conseillé xam nañ li liñ ma conseillé loolu laa bëree ndax tamit mënumaa jóge ci benn làmb ñëw ñëpp ne ma teel ma ñëw di di asaaloo sama làmb te souvent li may faral di wax rek làmb ñaara koy def te doonatuma poids léger te dama bokk ci poids lourd yi ñi fi gën a diis ci làmb ji dama cee bokk kon tey jii nii suma ma amee benn combat am adversaire boo xam ne li ma ko ëppee ci poids dafa bëri ma dàq ko muy daw du ma maam ma di ko wëri ji damay toog jàkkaarloo moom te ñëpp xam nañ ni xeexkat la te xeexkat boo bëggee bëre moom foo nga woo ko ci xeex ba mu bàyyi xel xeex bi nga daw bëre ak mais bëre boobu daf ko doon xañ ndax souvent da doon wax naan ñëpp nee nañ naax lay bëree du ma ko may naax bi fu ma ko jàpp mu daw nee ngeen génn làmb ji kon nag man def naa suma devoir. xëy na poids boobu noonu est-ce nekkul tamit poids bi nga xaw jël moo lay sonal ci yenn adversaire yi. non non aw ma problème boobu man man poids bi ma yor dama koy liggéey te du ma di nelaw am ko. poids bi ma koy yor dama koy liggéey liggéey bu wóor damay damay matinaalu damay def musculation damay contact bu fekkoon damaa toog rek di musculation mën nañ ne sax dama jël poids boo xam ne mooy la mais damay contact lu dëgër. kon poids boobu jaaxalu ma. d' accord yéen ñu nekk ci lutte simple bi souvent da nga ñu am ay problème adversaire euh, boo xoolee ku ci bëri ren bala ngaa bëreeti déwén mën nañu citer ñi nga xamante mhm. gën nañ leen a ràññee ci ren ñu bëri muy yow ak Doudou Sané. ba mu ngi bëriwaat suba. Mhm. lan moo tax gars yi moytonte bi. waaw ni mu demee la rek xam naa sax boo moytul moom léegi ñu léegi ñu wàññi simple bi ndax souvent simple bi dem na ba dañuy xañ adversaire te man njëkkeewuma ko man lutte avec frappe laa ko gis naa ne avant may dugg ci simple bi benn saison dama ci daan bëri quatre combats bu néewee ba ay trois mais moment bi ma commencé prouver ci lutte simple bi nag dem na ba pour ma am sax deux combats ci saison bi problème lay doon bu bëree ba bëri benn laay am mais nag sant naa yàlla ba ma dalee bëree bëri musuma def année balance. année balance bi ñu def làmb yëpp ko defandoo muy moment wu Covid bu weesoo Covid musuma toog benn at bëréew ma kon sant naa ci yàlla quoi. d' accord tey général fi mu toll ci làmb nekk maire lutteur lutte simple jël ko jëlati ko dem équipe nationale te ba tey boo xoolee général daanaka ci côté arène. Mhm. daf ci xaw a am retard. parce que ñu mhm. amateurs yu bari ñuy wax yooyu boo xoolee tey mën naa ci cité. Mhm. ku ci mel ni ñoom Goro Sock fi ñu toll. ñoom Franc te ñëpp ngeen débuté ndoo ci mbapat donte ñoo la jiitu ci arène. Uh-huh. retard boobu noonu. waaw retard ndax fi mu toll nii. ñooñu moment bii nii ñi ngi ma fi limal amul ku ma ci gën a baax palmarès aussi tamit amul ku ma ci gën a yegg benn niveau bi ndax tey jii nii boo duggee YouTube xool ñoom seen parcours xool samay parcours kenn ëppalewu ma ci parcours bu baax. lenn rek kay la ñuy wax problème adversaire lan moo tax adversaire yi duñ jël général loolu la ñu war lijjanti mais maa ngi fi ma nekk de tey ba suba bu ma demoon làmb nii bu ma jugee amateur yi dañuy xam ni mbër mi ñëw na. te loolu yombul am na ñoo xam ne mën nañ dugg stade ba génn duñu xam sax ndax ñëw nañ mais man su ma nee tag biir stade dinañ xam ni mbër mi ñëw na te loolu mooy li am solo adversaire yi nag du ci forcer kenn naan ko kaa ñu bëre. dégg naa dama am staff sama staff lu mu bëggul man du ci du ma du ma ci poussé. du ma ci mais général war naa bañ góor a soog. loolu yëpp sama sama staff la rek man du ma du ma proposé sama bopp adversaire dañ may dañuy jëm indi adversaire proposé ma ko. wax ak sama staff ñoom ñooy nangu wala ñuy bañ mais tey jii nii waxuma sax góor a sokk man war naa mën a bëreek ñoom bombardier. Mm-hmm. où est problème. Mm-hmm. Gris Bordeaux ëpp ma victoire. Mm-hmm. mbër yi fi nekk ñu leen di bàyyi xel mbër yu mag ëpp ñu ma victoire. kon man avant fu ma teg sama bët quoi na ma gaa yi jël ñu bëree moo gën seen yooyu noonu. tey nga <coughs> jóge ci combat. dinaa pause mais ñu jëm benn combat muy suba. Euh, di Reug Reug ak Sa Thiès yàlla na ci yàlla def jàmm ak salaam. tey bala ma ñëwaat ci sa palmarès ak ci sa carrière. laa mu jooju laa bëgg nga analyser ma ko en tant que sportif. waaw mën naa cee analyse mais lu néew lay doon. Mhm. ndax lu tax du doon lu bëri mooy ñoom ñaar ñëpp sumay adversaire lañ. Mhm. te du ma toog di. mais analyser en tant qu'amateur. waaw déggoo li ma la mën naa ci analyser lu tuuti te bëriwul ndax ñoom ñaar ñëpp damaa war a bëri ak ñoom. Mhm. bokk ma ca kenn lenn amul ku ma ci sóoraale ci leen wala amul ku ma bëgg topp sa ginnaaw ci lenn. liñ yor ku ma ci ëppalewul ëppalewoo ma ko comprendre nga mais doon na làmb joo xamante ne man nee naa ci gàttal mën na bokk ci luy dekkal làmb mhm. ndax li tax mën na bokk ci luy dekkal làmb mooy tey jii boo xoolee làmb dafa raaroon genre combat yu mel noonu te ku ne xam na ni man maa ngi fàttaliku pendant quatre ans toog naa di déglu rajo amateurs yi paa yi di wax ci diggante làmb Sa Thiès ak rëg-rëg mhm. moment boobu rëg-rëg la ñuy déclenché mhm. gars yi naan kañ la làmb di dox bañ boolee diggante Sa Thiès ak rëg ba amateurs yi dañuy xaar lu doy waar lu rëy lu neex la amateurs yi di xaar ndax li tax mooy ñaari mbëri ku ci nekk dafa am qualité. dañoo bokk ay qualité. ñëpp man xam naa ne Reug Reug day teg pied gos ak pied droite di ko bëree te bu ci nekk da ci am fort mais forum dëgg pied gauche la. Sa Thiès day teg pied gauche di bëri ci droite mais forum yëpp pied gauche la ñoom ñaar ñoo bokk gos bi ñuy teg. aussi bu ñu xeexee day neex bu ñu bëree day neex ndax ñoom ñaar ñëpp garde normal la ñuy teg te Sa day naax daw dóor la ans boo dof dof la mu fàqat la daw bëtt la Reug Reug saa bu la jàppee dalay lay dëbb sol naax la bu la faqatee nga bañ bu lay faqat booy xaw a rëpp daw na wër la nomba bu la wërul nomba dalay lay naax daw dajale tax la bu mënul am loolu day fexe ba ñaari ngemb yi dajaloo mu jàpp bu jàppul ñaari loxo ci ngemb du bëree Reug Reug du jàpp benn loxo mu bu ko jàppee benn loxo rek day faqat mais saa bu jàppee ñaari loxo dalay lay jéem a ŋoobu ba mu dëgër bu tegee góos jàppat ni droite bi la lay zongalee te loolu fooram la Sa nag ku xam na ni coow li lu bëri bëri bëri deux minutes yu njëkk yi moom loo ko fa may lu tolloog tarafatal ay ni mu ngi sa kaw ndax du mbër muy jàpp kase taxaw di xaar moom saa jàppee day def action. ñaari mbër yuy bëree teg pegos. Mhm. tey lan la ñu mën a xaar bëre bi mooy gën a gaaw wala xeex bi. non dinañ xeex dinañ bëre mais gëm naa ne mën na jeexee ci bëre te bëre laa yaakaar mu jeexee ndax li tax mooy amul ku fi ku fi mës a ñëw làmb misé wu ci xeex ba ñëpp di la bàyyi xel donte sax jàngi nañ xeex wala mën nañ xeex mais ñoom ñaar ñëpp seen foor bëre la Reug Reug fi mu yegg si tey xeex yegg si indiw ko fa bëre moo ko fa indi hmm. Sa Thiès aussi fu mu yegg si tey yaakaar naa ni bëre moo ko fa indi ndax ku ne xam na ni Sa Thiès champion du ko kenn du ko naatable aussi tamit dama daan gis Sa yor poids bi mu yor mun naa ne ay cent trente kilos cent vingt kilos day daw ba mu ko daaj përier loolu ku sa yaram nangul munoo ko rëg tamit aussi yaramam may na ko lu lu ko neex hmm. kon ñu ngi ciy ci làmb hmm. ci wàllu yaa ko mujjee daan hmm. tey mën nga ñu uh, indiwaatal tuuti yan qualité nga ko daanee woon waaw samay samay qualité est-ce que du ma bàyyi du ma bàyyi amateurs yi ñu non mais mais mais parce que vidéo maa ngi gis bi gars naan non Euh, lii dafa yomb général ni mu mënee woon rëg rek ak yooyu tey mën nga ñu ñëwaatal ci ni nga ko daane woon. waaw ku ci nekk ak li suñu borom def ci yow man su ma mënee toog di leen waxal li nekk ci yow man it gëm naa ni yàlla am na lu mu def ci man lu rëy loo xamante ne dama ko koy sante ndax ba nii may waxee yow jàpp naa ne sama moroom góor bu ma jàppanteel man maa la mën maa la bu doole. Mhm. loolu mooy suma philosophe loolu laa gëm. Mhm. te du doonul lu may wax mais tey jii nii loolu luñ jëflante woon la mu jàll. mais moment yi nga koy yaakaar non man général boobu booy laa sax bu ngeen xoolee su fekkee yéen a ngi seetaan boobu laa gën a nekk xale mhm. te yaakaar naa ci diggante bi li ma ci li ma ci màgg macha allah bëri trop mhm. mais bëri la woon bu neex la woon ndax moment boobu noonu amoon na ay ay yu ñu doon weccoo amateurs yi di ko waxtaane ñii naan mbër mi ñu gis jamono ji général rek ko mën a daan affaire yooyu man it aussi ma daan waxtaan ak sama benn grand frère ñu daan toog comme moment bi may soog dugg ci bëre simple bi mu naan ma man kay gis naa la jàmbaar nga mais benn mbër rek ma jaaxal rëg-rëg boo waroon bëreeg moom ma ne ko billaahi suñ bëree ma daan ko du woon dara mais su ma gëm-gëm ndax man ba nii may wax ak yow ki doon sax roi des arènes gëm naa ne bu ñu bëree ma daan la mooy su ma gëm-gëm amul benn adversaire bu may gëm ne tey bu arbitre sifflé su ma diggante ak yow da war am ci man lu tolloog tarafatal ay nii. d'accord mais làmb la woon ma def fulla ak fayda du doonul lu ma tirise ndax dañoo bëre mu metti bëre feeñ yàlla suñu borom defal ma ndam. d'accord ci sa biir live keroog maa ngi dégg nga def benn live nga ni. Mhm. bëre rëg-rëg faaw nga am gàllaaj ba pare mën a bëre. mën nga ñu indilaat mën nga ñu indilaat ay leeral ci loolu. waaw bien sûr lexeti lexeti kase naxuli yaakaar naa mbër mu toll ni rëg-rëg war a bëreeg moom rek war a bëreeg moom boo amul boo amul boo amul ginnaaw dëgg waxuma la sax bëre ba bu làmb ji jeexee di nga di nga di nga di nga jugaat ci sa bopp bu baax baax a baax a baax pour mun a taxawaat dafa am yàlla mbër yu bindee noonu ndax bu dul dara du mbër mi kase mais yaatu ginnaaw la dafa am mbër yoo xam ne danoo yaatu ginnaaw. te tey ku war a bëreeg ñoom dëkk di yëngu. te moom yàlla noonu la ko bindee dafa dafa dafa dafa dafa mystique dafa mystique bu baax a baax a baax a baax a baax dafa mystique dafa mystique trop mais yaakaar naa ni Sa Thiès ñàkkul mystique bu mu résister rek rek moo tax làmb la boo xamante ne ñu ngi ciy ñu ngi ciy xaar lu doy waar ndax tey ji ku ne xam na ni Sa Thiès ñëpp xam na ni doomu Casamance la. aussi kuy sa baay Double Less kuy sa mag Balla Gaye Balla Gaye def façon joloore bu ne ci làmb yaakaar naa buñ ne ndax war naa mën a résister rëg rëg ci mystique war naa mën a nekk quoi sama xalaat bu gàtt. d'accord état de forme ñaari mbër non macha allah vraiment. athlète lañ ay sportif lañ mais vraiment damay apprécier ci seen état de forme ndax ku leen xool xam ni macha allah ku ci nekk li nga waroon def def nga ko. ndax maa ngi dégg gaa naan Reug dafa jël poids ma leen poids bi mu jël miin na ko Reug Reug ba muy bëreeg Elton poids boobu la yor ba muy bëreeg guy gi poids boobu la yor o contraire sax bu poids yooyu mu yoroon ëppul te boobu ba léegi mu ngi koy maintien souvent nag. des fois lamb ju nekk ak li muy laaj jàpp naa ne ci li mu nekk nii lamb jooju loolu laaj moo mu def ko mais Sa gëm na ni rapidité ak vivacité ak résistance bu wér ak endurance moo ko mën a génnee ci làmb ji mu dem liggéey ko mais macha allah ñoom ñaar ñëpp seen état de forme yi macha allah quoi. ñoom ñaar kan mooy favori. favori mënu ma jox kenn favori ku ci nekk yor nga ko jox. Hmm? ñu bari na nañ rëg rëg mooy favori. rëg rëg waaw bien sûr nañ ko jox favori mais Sa Thiès bërikat la aussi. xam nga souvent ñaar ñi ku ci nekk dafa am loo def ci mbapat may mba fañ mbapatee moo bokkul kii dafa ñëw cibre simple te bu njëkk ba boo bëggee def carrière ci bëri dóor dañ naan la moytul mbapat bari bi ndax dalay xañ adversaire mais rëg pour man fi mu yegg si nii dafa sacrifié wu pour mën a si ci gars yi ndax man dama daan toog dégg rëg-rëg dañ lay fay xaalis mu ne wàññi leen ma sama xaalis yokkal mbër mi pour mën a bëre lii la buggoon mais xam naa ne bu sàgganoon tuuti mën na bëre ba toolu fenn fi da mbëri duñ ko jël mais fexe na ba imposer boppam ba bokk ci lutte avec frappe kon loolu leneen la Sa tamit dafa ñëw rek ñu xàllal ko mu am ay adversaires yu baax mbër nekk na fi pendant cinquante adversaires yi Sa Thiès am amu ko mais dafa ñëw rek am ay adversaires yu baax lool nag dafa am ñu ko ko liggéeyal avant mais mbër la. ñoom ñaar ci wàllu bëri. kan moo avantage ku nekk man man xam naa ni bu làmb ji yàggee Reug Reug ëpp avantage ndax min na jàppante bu yàgg. bu gaawee Sa mën naa ëpp avantage ndax man fàttaliku ma Sa Thiès làmb ju mu bëre benn cinq minutes ba daw mi ñëwaat wala dix minutes. lambam yëpp vite fait lay doon. kon bu yàggee Reug Reug mooy avantage. Reug bu yàggee moo avantage nag Reug Reug bëri na fa bëri naag façon mbër bu ne fa bëri naag aussi tamit façon taay bu ne kon moom jàppante lamb ju yàgg jaaxalu ko amaana kay xanaa li may xalaat kay moom ñu ñëw ba ba kenn fàtte boppam daal ci musique ma loolu laay xalaat. ñëw ñàkk faa nekk mais bu ñaari mbër yëpp nekkee ci làmb ji Sa Thiès dongali jaar nee daw ñu ne Sa mu ngi fi Reug Reug daw jaar ne ma xam ni Reug Reug a ngi fi yàlla xam na ni maa ngi xaar ci ñoom bëre bu neex. tey ba ma doon wax faayu Reug Reug. non Sa Thiès. moment bi dañoo nekk si veille combat. non mais waxtaan ak tànk amateur. may génnee non non non tey kay waxal bët kay waxal. waaw tey faayu bu fekkee ci côté faayu Reug Reug Sa ma ko gën a xam ndax yaakaar naa lu metti metti dinañ ko génneel lay combat wu Reug dinañ ko indil yim daan ak yim ñàqee. bu bëggee bu bëggee am résultat ci kaw Reug Reug dina dem découvrir faayam mais man dinaa toog di wax sama faayu moroom te man du ñuy samay adversaire ñoom ñaar ñëpp ma ci ma a bégal Sa Thiès pour wax faayu rëg-rëg a bégal rëg-rëg di wax ci faayu faayu Sa Thiès parew ma pour ku ci bëgg xam sa faayu morom di nga ko dem wëri mais man ñoom ñaar ñëpp xam naa seen faay tey ku ma ci doon bëreel doo jaaxal ñoom ñaar ñëpp ku ma ci doon bërël du ma jaaxal barki alxuraan lamb ji mën nañu xaar mu jeexee ci bëre wala ci xeex. ah mën na am lépp ah, dinañ xeex de mais mu jeexee ci bëre laa gën a xaar nag mais aussi tamit mën na jeexee ci xeex ndax boo xoolee mbër yi jàng nañ xeex bu baax a baax ñëw te ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk pois lourd nga sa coup fu mu dal war naa mën a def effet ñoom ñaar loxo yi leen yàlla may fu mu def fu mu dal effet war naa mën a am. tey ñuy xaar euh, euh, euh, rëg Sa Thiès. Mhm. Balla Gaye jógee ci defet mhm. te keroog rëg rëg ñëw na ci stade bi xaw ko déstabiliser. Mhm. tey pression boobu noonu est-ce que Sa Thiès du ko bëriwaale. non lamb moom bu ñu bëggee Sa génn ci bu ñu ko tegal benn pression na fàttali weesu digganteem ak rëg rëg ñëw indi esprit tranquille dal. te góob ma ni loolu war na ko mën a dépasser Sa Thiès def na fi façon signature bu ne Balla war na bëreeg yéegi ni ñu xeex signature ba indi fa façon coow lu nekk te ba làmb jotee Balla Gaye daa ñëw animé ñu bëre ko ci ci ci ci ci fulla ak fayda Sa Thiès bu amee maanaam bu bu amee staff dëgg loolu du ko ñëw indiwaale ndax bu ko indiwaale mën na yokk problème am te góob ma ni dina ko indiwaale sax le passé c'est le passé. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. tey tey tey tey combat bi lan nga ñu mën a wax ci côté supporters yi ak ci côté aussi. waaw waaw ñu gën a bàyyiwaat xel rek fi làmb toll quoi ndax mën naa ni Sénégal bëri nay sport mais lamb la ci ñëpp cité bàyyi leen xel da ngay sax doon mbër boo rombee ñu ne noo mbër yi dañoo violent mbër yi dañoo bëri coow seen man man man dama toog sama benn grand sama benn grand médecin mu ne ma daa bëgg def esat sa làmb ji dama cee bëgg ñëw ma ko amul benn problème ku ku baax di kilifa ma ne ko sama làmb ji amul problème mën ngaa ñëw mu ne maa ngi xool nan laay def ba ñëw ne suy ñëw dina ñëw mais du indi otom ndax li muy dégg ci làmb ma ko làmb amul benn problème mu gaare àll ba ñëw na ñëw na ba Pikine gaare otom ci àll ba dox ñëw dugg ci stade bi fekk fa li nga xamante ne moom nee na gëmul woon ni làmb noon la mel pour wax la ni ñu nekk ci baara tuus yi di yàq moo ëpp que ni làmb di doxee mais tamit supporters yi faw ñu xam ne làmb lu mu rëy rëy rëy ci làmb lay mujjee làmb mënut a génn ci làmb ku seetaan Balla Gaye Yékini seetaan bala gay Tyson seetaan Balla Gaye Modou Lo seetaan Gris Bordeaux Eumeu Sène làmb waratu la mën a dépasser pour man na gaa yi xam ne làmb la que le meilleur ñaari ndamay dugg benn mooy génn wala ñu mat si niil kon tey bu ci kenn am ndam ba fàtte ni ndam ndam ndam li Sénégal lay am Reug bu amoon bu amee ndam ndam li du jé génn Sénégal Sa bu amee ndam ndam li du génn senegal mhm. te ñun ñëpp ñoo bokk bëgg bi ndax làmb lañ bëgg si làmb moo leen di bégal kon bu làmb defaroo suñu làmb la bu yàqee aussi tamit suñu làmb la kon nañ xool nu mu gën a rafetee ñu def ko rek. supporters yi gën a bàyyiwaat xel seen. tey lan mën a xaar ci général ci ci prochain combat am. Hmm? tey lan lañ mën a xaar ci prochain combat général. ak lu doy waar lu doy waar man man man fi ma jëm mooy fi gars yi nekk rek. roi des arènes laa war a doon de moom laa war a doon xam nga tey jii nii li nga war a doon xam ko yaakaar naa saa boo xëyee da ngay xam li la koy may nga nekk ci te saa bu ma xëyee maa ngi xool lii may roi des arènes ma nekk ci. adversaire yi nag mënul ñàkk dinañ ma jël ndax li tax dinañ ma jël mooy dama bokk ci làmb man su ma bàkkoo mu neex su ma bëree mu neex te damay def fulaak fayda te dafa am lu rëy lu nekk sama ginnaaw département Kër Massar bi dafa nekk sama ginnaaw Malika yëmbal benn baraak buun Kër ma saar àll ba ñaax montagne bu ba waa Kër Massar cité Pélitance waa ñàgg ñàkkorob Tivaouane Pël Daaru Cubb xam nga gaa yëpp dañoo nekk sama ginnaaw tey jii nii xam nga ku ne xam na ni moment bi ku ma tëggal làmb doo ko loolu daal laay wax moment bi ku ma tëggal làmb doo ko waaw gaa yaa ngi fi. na ma gaa yi jël ñu bëre. d'accord ok na ma gars yi jël ñu bëre bu baax a baax a baax. d'accord mu ngi noonu ah. ok waaw laa dalaloon. mu di général Malika. Euh, def analyse bu am solo ci combat Reug Reug ak Sa Thiès mhm. yaakaar naa li mu wax tamit képp ku ko déglu. Mhm. ah war ngaa mën a xam ni waxi mbër la mais tey dafa analyser analyse amateur. Mhm. Euh, mbër tey lan ngay tàggatoo. waaw santaat yàlla rek. di la nuyu yow suma frère nga. mën naa ne yow defandoo lu bëree bëree bëri bëri quoi tey jii nii yow a njëkk àndal nga may wan ni ñuy soowee. <laughs> caméra yee neex rek nga daw topp ko mais yaa ma njëkk a wan. lii soo ah? ma ñëw eh, boo wax guy gi xam naa ni yaakaar ni naa ndeysaan dafa xaw a dafa xaw a réeré mbir rek yow jamono yi ngay tudd Issa Pouye. Euh, boy di tudd Boy Pire non balaa may sant lool faama faama. faama wax ni gars fii laa ñëw gars yi di yenoonte jamono yooyu may wax ni foo amateur yi bàyyi ko xel guy gi quatre-vingt-quinze ba muy doon booy fii man xooluma moom ëppoon foofu moom ëpp doole moom laa njëkk a fekk géej ñuy yenoonte moom ak Iliman Kani Sadam ñu ànd ak euh, Jéba li may wax ak Bey Ndiaye. ak euh, nu mu tuddati waay ak kii ak Babacar Diallo jamono yooyu Babacar jaalo bu Faas. moo daan nekk Malika di entraîné booy ak ñoom dóor dóoraat. ma ñëw ne damaa bëgg entraîné gis guy gi quatre-vingt-quinze simeeku def kilo tam toll nu ko neex. gaa yi daw ba seen yaram tàng di arrière man damaa bëgg entraîné gaa yi di yéenonte. gaa yi nag comme guy gee fi nekk yéenu ko ma yéenu ko arrière deux pas trois pa mënu maa dem ne ko booy mënu dem. wàccee ko dem ñibbi sama tànk yi forox mënatumaa dox. kon yow ku xam na ni sportif nga ñëw naa tamit fekk la saalu daawur ndem si yàlla si képp ku dëkk Malika bëgg entraînement xam na daawur di ko ñaanal yàlla na ko yàlla ko àjjana ñëw naa fekk fa ngay di entraîner may woo si mu téye benn di ci dóor ma naan ko xaaral ma xool ni ndax attan ko yëkkati ko tegaat ko mënuma xaar dóor te jamono yooyu guy gi da koy entraîner. champion la kon moom champion la quoi mais ku nekk ak fi suñ borom di jaarale seen mbir te na fi maa ngi santaan ak ñëpp sama sama ami yi nekk si jaspora bi xam nga aw ma seen fay ndax gars dañ may jàppale sama benn grand Boston aw ma fayam ndax nit ku nit ku nit ku sori ci man la ak suma benn sama benn grand ba lamp bu caaray moom it aw ma fayam maa ngi koy sant bu baax a baax a baax sama gars yi nekk si jaspora bi sama grand Souley iPhone aw ma fayam waa Colobane mafia Colobane mbay Colobane mbaaya Baye Sidi aw ma seen fay di bëggee ñoom jaal di bëgg tam fi ngeen ma fekk ah atelier Dev Dev Couture <laughs> wax rek <laughs> fayam Dev Couture vraiment moom moom mën naa ni ñoom ñoo yor suma staff mhm. mais seetaan nuñ ma quoi vraiment chaque jour ñu ngi xool luy jëmale général kanam duñ jug ci di ma conseiller duñ jug ci di ma jàppale kon ñom maa ngi leen di sant bu baax baax ñoom papa Ahmed Gueye xam nga ñoom ñoom Mamoussa ñoom waa Tafa Soumaré Seri Sona xam nga mafia bi yëpp daal ñoom Mbia si borom cité Sonatel ah sama gars yi tamit sama sama nekk France tamit maa leen di sant bu baax a baax a baax mm-hmm. di wax suma benn frère Alassane borom États-Unis naan ko euh, reménage day soog a takk jabar. naan ko yàlla na ko suñu borom defal jàmm ak soxnaam yàlla yàlla may leen ci ay njaboot gu barkeel quoi vraiment. di ko ñaanal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm. di wax yàlla na jàmm yàgg. mu ngi noonu ah vraiment di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen àndoon ak ñun dañuy suivre di leen jox yeneen dig daje ci suñu yeneen. émission Omar Lo mu ngi sama ginnaaw de jaay taaru ma ah. <laughs> sama jaay taar <laughs>